qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru qalbi lahu fi itaab al-jismi takraaru li'annahu lil-hudaa wan-nuuri jarraaru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 julli ci yonentam bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam dem di jaajëfal Seexul Xadiim ñaan suñu borom ko di ñaanal bu baax Seex Muhammadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba lim yéene liggéeyal lislaam mu àggale ko njortam kon na fas yéene dikkaat insha allahu taala ci sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaati mu doon jataay boo xam ne dañ ci fàttalente ak di ci laayenti biir jataay yi nga xam ne nag moo paase noo ngi doon fàttalente ak di laante biir ci solo si nga xam ne julli am na ko ci lislaam yitte gi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko julli mel ni julli du war ko ittewoo lool ngir solo si nga xam ne moo ci nekk nga xam ne loo nekk nekk ci xat-xat du du tax julli wàcc la loo nekk nekk ci ay jafe-jafe moo xam tawat la wala tukki wala la ci aju du tax julli wàcc la kon moo tax kenn ku ci nekk war cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ci ni nga xamee ne noonu la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax wax na ni julli mooy ponk mooy euh, mooy asalaatu imaadu diin julli mooy ponk diine kon nga ne mooy kennul diine koo xam danga da ngay taxawal julli ne la yaa ngi waaye koo xam ne dangay ngay mab julli ne la yaa ngi bokk na ci tam lam waxoon ne ëllëg yoman xiyam li jëkk a ci jàmm bi mooy julli bu ñu xoolee julli baax rek la ca des lépp baax waaye bu xoole julli baaxul rek la ca des lépp wala yasubillah mu doon loo xam ne lu jara faru la julli nag am waxtu ni alquran wax inna salaata kaanat ala almuminina kitaaban mawquta julli dafa am waxtu du caagin ne da toog waxtu wala neexee rek wala su waxtu wa jotee nga nekk ci say yitte nekk ci say soxla soxla ye wala yitte ya gën laa ñor waxtu wa déedéet yëpp yitte joon nekk lu mu mën a far ba waxtu julli jot julli ga moo ko gën a far danga koy bay indi woon nañ ci misaal ci gi jàng alquran nga xam ne alquran mooy li gën a rëy gën a mag gën a bari ngënil ak barke xam ne kenn mënu ko xiyaas boo ci nekkoon di jàng alquran boo ko di julli jot nga sukkandiku ci màggug alquran gi ak réem googu ak barke tax nga bañ a julli ji jàng mu nga jàng alquran yaa ngi def lu xaraam indi woon nañ ci misaal ci lenn ci sunu bokki soxna yi ñi nga xam ne daanaka doy dil julli ci ñoom la gën a bare lenn ci ñoom nag laa nañu farlu ci ñoom sax lenn ci ñoom nga ci ñoom la gën a bare doydil ko seen itte ju ju ndaw rek mën na leen yàqal julli waxumala julli ko ci waxtu waaye bañ sax julli mën leen ko yàqal ba indi ca ci yi nga xam ne mooy aju ci wàllu xew yi ak yi ca aju ak lan cay def mu leen gënal julli te julli nekk loo xam ne lépp lu dox sa diggante ak julli rek loola day dal di xaram ci yow ak lu mën doon rek ñu indiwoon ko ba ci ñi nga xam ne itam ay kilifa ci ñoom moo xam sa doom la wala sa soxna la wala sa rakk la wala sax sa mag wala koo xam ne sax am nga cër ci moom mën koo digal mu def nga tere ko mu bàyyi nga di ko soññ ci mu farlu ci di julli ndax julli moom moo gën a gaaw ci jubal nit ki inna salaata tanha anil fahishai wal munkar alquran moo ko wax kon ki nga xam ne bëgg nga mu tege digg digg ci siraatal ma del fexe mu julli rek tey julli julli ga nan ko diglee mu di ko defal ci matal Euh, euh, rukon ya ak sujjóot ya matal farata ya ak la nga xam ne moo ci aju lépp bu ko dee def rek mu gën a gaaw ci jubbanti doomu aadama indi woon nañ ci misaal te ki nga xam ne moom dafa fonk julli loolu waaye nag benn yoon ak njabootam ci julli la ko war mooy muy julli waaye muy fonk muy soññ ak njabootam ci julli euh, dina bari looy gis nit ki mu coowoo ak soxnaam wala sax doomam wala kenn ci xañ na defaluma nangam nangam la aju ci àdduna masalan xañ na coowo ci toggoo añ wala toggoo reer wala nangam ak nangam wala da nga koo a def wala wala yu ko waaye coowoo ci dama la julliloo nga lànk dana néew lool te loolu nag rek jaran coowoo nag eh, jullil nga lànk loolu rek moo jaran coowoo waaye am na yenn yi jës it daanaka jëru ko woon kon kenn ku ci nekk war nañ farlu ndax ba alquran waxee ne na ngeen fegal seen bopp sawara ak seeni ñooñ kon ca nga war a diggale nit ki saay bu nekkee ak njabootam na fexey la nga xam ne moom lay fegale boppam sawara mu di ko fexe mu di ko fegale njabootam googu te mooy muy mu leen digal ci lépp loo xam ne mën na mën leen indil ëllëg mbugalum sawara lu am solo bu nu indi ci misaal ci jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci waajal di togg ci barab di togg ba dégg ñu noddu waxtu julli la ko war mooy mu am itte ji toll ki xam ne waxtu wi jot na te day paase te lii mu nekk du paase mu bàyyi togg ka ba dem jooxe waxtu borom bu pare door dikk continuer ak julleem ndaxte sax nag dafa wóorub jigéen ji nga xam ne nekk na ci barabam nekk ci ab liggéeyam moo xam day togg wala nu ko nuru ba waxtu julli jot waaye togg ko gën koo itteel waxtu julli ga taddugo kon mbaa lekk ko sax du nekk lu xaram wala mu indi leneen lu jara bàyyi xel la ndax eh, Sëriñ Tuubaa nettil nañu ci eh, al majma'u nurayni téere boobu bi mu koy bindi dafa wax ne fa inni raaytu naas raaytu naas yarghabuna fi taa'atillahi wa rasulihi ma jahlihim wa kaslihim misli dafa wax ne dama gis lu bari ci nit ñi Eh, ama xemmemteef lool ci topp suñu borom ak topp yuntam waaye nag ànd ak ak tàyyel lool ànd ak ak tàyyel ci jàmm yàlla ga booy julli doo matale roko ya ak sujjóot ak lu ko nuru danga koy gaawtoo lool ak leneen li nga xam ne ci ay jàmm yàlla nga koy def ngir bugg caapare rek dem jublu ci àddina ak lu ko nuru loolu mooy inni raaytu naas yarxabuna fi taatillahi wa rasulihi ma jahlihim wa kasrihim misli muraadu ndax jamaatu bi hasil kitaab maa yufiidu maa fi dunya wal ma boole ci téere bi loo xam ne danañu jariñ ci àddina jëriñ ci àlaxira téere bi nag ca la wax ne fa kullu ma fiihi saxiixun manquulun an siqaat laa daifa fiihi lépp loo xam ne ne yaa ngi koy tiim di ko jàng ci téere bi lu wér la lu nu toxale la ca boroom xam-xam yu dëgër wax na ci biir ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne ki nga xam ne dafa bàyyi julli ngir doyadil julli waaye ngir sofental ko nee na bu dugalee ay loxoom ci biir aw ñam ñam wa day lox wala nga ne day am tooke ju génne ca ay weyam di wëndeelu ca biir ñam wa képp ku ca lekk sab xol dana wow te sab xol wow sawar mooy nekk sa dëkkuwaay ndax alquran moo wax ne fa waylun lil xaashiyati qulubuhum loolu wax ne isa jacala taariku salaati yaddahu fi taami yaxturu bayna asfaarihi sumun yajuulu fi lxascati fa kullu man akala minhu ixtaraxa xalbuhu wa man ixtaraxa xalbuhu xasa wa man xasa xalbuhu fa naaru maskanuhu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci beneen xadis ne ki nga xam ne dafa bàyyi julli dafa doy dil julli nena bu jubloo aw ñam ñam wa day lox di wax ne yow sama boroom nanga nocc ci man barke kon ki nga xam ne dafa bàyyi julli doy del julli defu ko itteem ginnaawal ko ba amee soxla du julli wala wala du gaaw a julli nena kooku bu jubee aw ñam ñam wa du am barke ndax ñam wa mooy ñaan ne suñu boroom nanga ci man barke isa aqbala taariku salaati ala taamin irtaadda taamu fa yaqulu fa yaqulu allahumma ansi minni barakatan waaye ñu jëlawaat ci moom ba tey mu wax ne koo xam ne danga muuñ ci kanam aji bay ji julli danga muuñ ci kanam aji bay ji julli ne na yow mel nga ni ku mabbu ponki kaaba ga ki nga xam ne dafa bàyyi julli dafa doyadul julli itteem yépp a ko gënal julli julli moom daf ko def nee na kooku koo xam ne danga nooyal sa kanam ci moom rek yaa ngi mel ni yor nganaay di mabbu ponki kaaba ga del wax ne koo xam ne danga gis sax ku mel noonu nga dem takk doomam nga dem takk doom nee na yow kóllëre gi nga xam ne moo doxoon sa diggante ak sa borom subhanahu wa taala nee na dog nga kóllëre googe kon mbokk yi bàyyi julli doy di julli gannaawal julli li ci nekk ci ay musiba rëy na lool mu nekk lu mat a bàyyi xel amma ak loolu lépp lu wax ci li nga xam ne mooy mooy ki doy del julli mooy ki doy del julli xam ne bala noo jeexal ñu tëje ko ci lenn ci njariñ yi nga xam ne itam julli am na ko ci ki nga xam ne fonk na ko lool di ko def la ko ci suñu jox la ko suñu borom ci ay njariñ tam bari lool waaye ñu indi ci lan rek ci jataay bi incha allahu taala julli njariñ yi nga xam ne moo ci nekk bari lool ci jàm bi bokk na ci benn rek bu jëleen ci li alquran wax ne inna salaata tanha anil fahshaahi wal munkar mu duy sëkk waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa masa laaj leen ci saxaaba yi ne leen maa ngi leen ci laaj bu kenn ku nekk bu ak dex nekkoon ci buntu këram mu de ci sangu juróom yoon parbis ndax kooku dana am ab tiir ci aw yaramam ñu ne ko déedéet mu ne loolu mooy misaalum julli juróom araytum law anna nahran ala baabi ahadikum yaxtasilu fihi kulla yawmin xamsa marratin ma taquluuna fi zaaka hal yabqa min badanihi shay'un min ad-danas laa qaala alayhi salaatu wassalaam kazalika mislu salawaatil xams nga xam ne kon julli lu am solo la lu mat di farlu lu mat di bàyyi xel la ci ni nga xam ne noonu lay tàggalee nit ki ak bàkkaar kom ni ndox di tàgg tàggalee nit ki ak tilim ndax bàkkaar Sëriñ Tuubaa wax na ni isi zunuba tuurisul xasaawa kama mada wa tujibu shaqaawa bàkkaar day woo day waral xol bu wow day waral ak texee di waa na koo gis koo xam ne dafa gis moo nay lool ci toog jataay boo xam ne jataayu borom xam-xam la wala jataay bu muy ko xam-xam wala jataay boo xam ne bu fay bu ñuy tudd yàlla wala ñu fay waare yu ko nuru ne nee na loolu la koy waral mooy xol bu ndax xol bu woowee rek ni ci lu jëm ci suñu borom subhanahu wa taala duutu duutu ci dugg xanaa am po ak caaxaan rek moom lay déglu moom moo koy itteel mu ci déglu ta bi sëriñ bi di dem di lim mandargaay naafeq ci téere bu di al majma'u nurayni wax na ne bokk na ci màndargay naafiq tarku mujaalasatul ulama wa muxaalatatu nisa loolu bokk na ci màndargay naafiq nga gis ne kon bokk na ci lenn ci njariñ yu rëy yi nga xam ne nekk na ci jàmm bi julli te farlu ci lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne na bu jàmm bi taxawee jëm ci julleeg farata fas ko yéene joxe fas ko joxe nee na suñu borom tabaaraka wa def daf koy xool bëtu yërmande wax ko ne ko yow sama jaam bi giñ naa ci sama tedd nga giñ naa ci sama màgg li ngay sakku ci joxe gi ngay joxe ci waxtu lépp danaa la ko danaa ko jox te ëllëg yowmal qiyaam sa jëmm duma ko lakk mukk ci sawara daal di wax jibril ne ko yow jibril bindalal sama jaam bi mboolem bépp karaw boo xam ne sax na ci aw yaramam bindal ko ko aw aw yiw tanga faral ko ci aw ñawteef tanga tabaxal ko ci kër ca aljana te ëllëg yow man xiyaam danaa ko ramuloo ci aw nitam juróom benn fukk ñoo xam ne sawara def li na yeyoon ba ñu bëgg a dem sawara loolu la wax ni isa abdu ila salaati alfaridati nazara allahu taala ilayhi fa yaqulu ya abdi wa izzati wa jalali la utiyannaka solaka wala axriqu jasadaka fi nnaari bada maqamika haza summa yaqul azza wa jalla ya jibril uktub li habdihi bi kulli sha'rin ala jasadihi xasanatan wamhu anhu sittina sayiatan wamhu lahu fi ljannati madinatan min miski wa anna ushafi'uhu yawma alqiyamati sittina min ahli min ahli baytihi kon loolu nekk ay njariñ ay yiw yu réeri yoo xam ne mi ngi ci jàmm bi nga xam ne dafa namm jóg jëm ci julli ji jooxe waxtu suñ borom subhanahu wa taala ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne yonent salaatu wasalaam ma ko commencé ci ki jàpp ci këram wala ci barabam wuti ci jàkka ja ñëwoon ci ay barab yu wuute ci jotaay yi nga xam ne moo passé kon loolu daal lenn la ci eh, itte yi nga xam ne itte yi nga xam ne lislaam jox na ko julli ñu war ko itte woo lool ba nga xam ne man nga wax ne ngàntal julli amut amul ci kenn moo xam góor wala jigéen jigéen nag des na ci seppee ci waxtu yi nga xam ne jamono yi nga xam ne li julli yooyu taxul ñuy wax waaye ngantul julli amut du ci coona du ci eh, tukki du ci feebar du ci fitna du ci lenn ngantul julli amut waaye ki julli kon ki sàmm julli lool kon mooy sa ci gis ni moom mën naa am yaakaar ju dëgër ci borom ko wa taala julli nag xañ na jafe na digg digg digg ca nan koy defee waaye itam mën na ne eh, eh, man ko jëfewut ndax boo ko ittewoo comme ni nga ittewoo sa mbir mu àddina rek lépp lu di julli rek mën nga koo mën nga ko mën nga koo mën nga koo mën nga mën xëy na loolu len len la woon ci ittiwug lislaam ci julli na bari na lool waaye loolu len la ci len la itam ci njariñ yi nga xam ne moo aju woon ci julli comme ni nga xam ne noonu la ko kii noonu la na ko kilifa googu sante woon ngir ñu ci benn tomb bu gën ci fàttalente rawat na gën ci fàttalente ci ak sunu mbokki jigéen yi ndax doy dil gunu mën a doy dil julli lool kon insha allahu taala foofu la ñuy taxawlu ci jotaay bi ba beneen jotaay insha allahu taala ñaan suñu borom defal nu ak dégg defal nu ak topp salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuh حسن الفاروق سيدنا ففي مساياه لا يرتاب طيار وعوى المتم ضوي الإسلام يوم عداء miima bi kaana lil islaami izhaaru wallaahu farraqa bil faaruqi sayyidinaa al haqqa min baatilin abdatu fujjaaru